Chers amis fidèles internautes, vous qui avez choisi la chaîne des grands événements VIP People TV, s'informer juste c'est vrai nena len leen su ngeen abonné ba noppi bu len faté bés cloche de notification bi tay ñi ñew indi len benen numéro acte du jour nena len dañuy xol li gëna a ci journée bi ñu indi len ko fi ci VIP People TV faram-fàcceel len ko pour ngeen am ci leen leer biñ koy tambalé moy journaliste sénégalais bi nga xamanténi moy Abdou Khadre Saxo bi nga xamanténi ni yoon da ko tégon loxo ginnaw bu mu bindé won benn information publié ko ci publié ko ci sen site bobu di Sénégal donté information bobu jaarul won yoon mu jëlé won ko ci ki nga xamanténi moy Ibrahim Sall J.T. ASRED la page Facebook am utiliser fa informations. information comme nous l'avons fait, ko journalistes ont source réseaux sociaux sur les pages Facebook wala TikTok parce que les journalistes, ont

pour ñu oyofal seen loxo xam ne ni que ndaw la bu juum maanaam amati dina ci jàngaat lu bare ci bir loolu nak je crois que amnañ ci gain de cause ki di Abdou Khadre sissoxo yon bayinako actuellement il est libre mom ak rédacteur en chef bi di mangoneka actuellement ils doivent humer l'air de la liberté le dossier bi classé sans suite donc on donnons le xamante indil nañ ko acte du jour beneen bi de indil Ousmane Sonko qui retiré de liste électorale journal L'Observateur publié woon ko ñu ko publié woon nag gis nañu yenn chroniqueur yu bare ku ci mel ni Serigne Saliou Gueye toogoon na ci télévision bi di dingat kii nga xamante ni mooy journal boobu di L'Observateur xamal na ni que du sous-préfet wala préfecture alma di ñoom ñooy jël dogal boobu donc dogal boobu du lu sérieux du lu nangam sangam des trucs consorts donc moom jàppoon na ni ko loolu du dëgg tay nak ñi bëgg leen firndel ni que suñu sukkandikoo ci ki nga xamanteni moy mooy media SN ak journal bobu di RFI confirmer nañu ko ki di Ousmane Sonko jot na notification bi koy xamal ni que retiré nañ ko ci liste électorale yi maanaam du doon électeur manam mënul wooteel ken ba nopi mënul doon candidat manam Ousmane Sonko n'est plus éligible ki di Ousmane Sonko jot na notification bi ko firndel lool lu ko waral nak dañ ko tëjoon deux ans de prison ferme par contumax digganteem mak Adji Sar ginnaaw biñ ko tëjee par euh, corruption à la jeunesse si deux ans ferme yooyu te képp koo xamante ni condamné deux ans ferme mënatoo ni éligible moo tax retiré ko ci liste électorale yi muy beneen confirmation boo xamante ni indil nañ leen ko tey ci Ousmane Sonko bi nga Les plus lépp lu jëm inscription sur les listes électorales dañ ko ci retiré donc mënul nous candidat mënul don électeur ñu don lam lamé ndax jox nañ ko notification wala jox ñu ko notification on ni que jox nañ ko notification Serigne Saliou Gueye plus particulièrement toi, ñoo mi don un ay journal sérieux wul wax je crois que tu as eu la confirmation comme je le dis souvent rek Serigne Saliou Gueye est sur le plateau uniquement pour défendre les intérêts de Ousmane Sonko té Serigne Saliou Gueye bu mu faté ni mom dossier classé wu sans suite parce que dafa amoon problème ak justice bo batay mi ngi continuer wax continuer di lamlaame di yëkkati làmmiñam di wax suba ngoon guddeeg ak mel melni Ousmane Sonko daf ko fay wala des trucs consort en tout cas luñ koy xamal rek na moytu lu daloon Pape à Niang dal ko plateau et di lamlaame di wax alors que d'un ko may liberté provisoire il est sous contrôle judiciaire donc Serigne Saliou Gueye je crois que war nga am fulle bu toll ni ñey kérok bañ la jappé ba tay ji Ousmane Sonko musul jël page Facebook de ba bind ci benn ligne di naqarlu japp biñ la japp musul def benn sortie ba tuddu la ci kon yow je crois que so nekkee ci plateau et des rey sa bop je crois que toujours moy aide bi ñuy sentir ci yow rek moo nekk ci yow tu as descendu di euh, corps de métier bi nga xamante ni mooy journaliste au lieu que nga waxal askan bi mais toujours tu parles au détriment d'une personne qui est Ousmane Sonko qui a tort sur toute la ligne. toujours si c'est acte du jour dañ leen di indil beneen fait boo xamante ni dañuy delluwaat nee naa leen démb moo tax ñu naan tey ndaxte Ousmane Sonko tey fële mu nekk dégg naa ni nee nañu mi ngi réanimation gars yi nee nañu Ousmane Sonko dafa nekk ci cas critique nekk réanimation démb ma confirmer leen ni que Ousmane Sonko musul nekk ci grève de la faim kenn musul gis 18 jours fukki fan ak juróom-ñett nit tok lek ko ba pare nga bëgg am bëgg taxaw Ousmane Sonko chaque jour nijaayam day jël lekam ko lañ koy toggé mu ko Ousmane Sonko mi ngi ndek mi ngi mi ngi wax rek bataille médiatique bi ginnaw ñom perte nañ ko Maître en tant qu'avocat s'est transformé en porte euh, porte-parole porte-presse nek les réseaux sociaux pour pour intimider la justice par rapport à la libération de Ousmane Sonko Ousmane Sonko mo choisir une résistance choisir na gasta gatsa gasta gatsa boobu moo sous mandat de dépôt tay mu la grève de la faim bi nga yalla ko l'islam nangu ko chrétiens yi ko kon mom su choisiree lolu mu am droit sa yu feebaree ñu fajj ko donte il est prisonnier mon ci bopam mu refuser soins yooyu ci droit am la ci akam ak fam la dañ ko koy bayal kon donc je crois que c'est pas la peine de manipuler le peuple nek ci presse bi di bind ay communiqué suba ngone Ousmane Sonko mi ngi réanimation ça ne nous concerne pas Ousmane Sonko mi ngi grève de la faim ça ne nous concerne pas ça n'engage que lui bi def ay un ay même ba nga xamanteni duguna fofu mu bëgg utiliser benen forme de résistance alors que cette résistance là est banni par l'islam, cette histoire là est banni par le le christianisme donc Ousmane Sonko su jëlee décision bobu ngén taxaw ngén né Ousmane Sonko mi ngi réanimation xana nak wax dëgg yalla démb yéen génné génnee communiqué bind ni Ousmane Sonko mi ngi ñaawlu soldaaru sénégalais yi ñi bëgg jël yóbbu pour ñu def intervention fofu ci Niger wax dëgg yalla ku sonna lekkoo pendant 18 jours ba ñu war la yobul réanimation waro tal di bind ci ay page Facebook donc parfois ce que je dirais aucun crime n'est parfait dans la vie parfois da ngén di fen te da ngén di faté da ngén di féné da ngén di def ay erreurs ci ginnaw donc amul benn sénégalais sénégalais boo xamante ni gëm na leen ci wax jojo ngeen di wax su ngeen nexé chaque jour ngeen bind mille communiqué sanni ko ci réseaux sociaux sanni ko fep wax Ousmane Sonko dafa nek grève de la faim wax Ousmane Sonko dafa nek réanimation Ousmane Sonko dafa nek urgence ça ne nous concerne pas ça concerne que Ousmane Sonko qui a pris la décision de ne pas s'alimenter ou bien de s'alimenter li may wax mi ngi lek mi ngi nan dara jotu ko c'est juste pour faire une pression à la justice pour pouvoir intimider les sénégalais ou bien wax ay tapé du waxi naxasaal alors que comme je l'ai dit souvent rek képp koo xamante ne yaa ngi woote gasta gasta képp koo xamante ne yow yaa tànn sa formule résistance nga ne sama de résistance c'est aller au palais en passant sur les cadavres c'est pour de du sens lan appeler la jeunesse à la violence appeler la jeunesse à l'insurrection appeler la jeunesse à déstabiliser le pays appeler la jeunesse à semer le chaos dans le pays alors que bi nga fondé sa parti ngay am masse populaire ndànk les lépp yaa ngi ko tegoon ci ay fen une yu tooy xep yàlla une la il ci say une yooyu ba nga egsi nga egsi fi bu dara jël ndogal jël ñu yóbbu la fële sous mandat de dépôt yow nga wara am résistance wara am courage wara am jom wara am fulla par rapport ak askan bi jàkkaarloo yow di la xol nga résister loolu wane ni que prison du dara ay fay morom jaar nañ fi te tey génn nañu li ñu bëggoon am nañ ko. yow ngay jouer si benn cirque yow ngay jouer si benn comédie di jouer si benn théâtre boo xamante ni di woote ay grève de la faim ay urgence ay réanimation ay avocat mec Clédor Dool li taxaw di fenn ni ay Alioune en tant que quelqu'un boo xamante Africa Afrikajom Center un Seydi Gassama wi nga xamante mom mo défendre euh, Raddho du droit de l'homme ñom tay ñu jog di défendre ñi nga xamante ñom ñoy brûleur yi manam ño xamante ñom ño don tal ñoñu lañuy défendre tay ana ñi ñi tal ana ñi ñak seen alal personnes yooyu ñooñu nekk ci qui nekk ci tis gisunu alintine def communiqué pour masawu leen wala défendre ni Seydi Gassama bi nga xamanteni défendre les droits de l'homme tay ñom ñan lañuy défendre moy ñi nga cause principale bi ñom ñoo tax ñooñu ñak seen bakkan ñom ñoo tal alalu jaamur ñom ñoo yak alalu jaamur ñom ñoo vandaliser ñoo loxo des prisonniers politiques de grâce, à de Gassama, vous ne méritez plus la confiance des Sénégalais. Vous n'êtes plus digne de parler au micro au peuple du Sénégal. Si on avait du respect par rapport à vous, sachez que ce respect est fini. Depuis que vous avez pris la position de défendre une seule personne au détriment de tout un peuple, bien que vous avez bafoué droits,

handicapé nañu dag nañu seen tank wala ñak nañu seen loxo seen baram waron ngeen bind ben communiqué sax woné ko masawu ñooñu j'attire l'opinion internationale sur ces deux personnes qui sont à et et euh, Seydi Gassama ils se postulent pour dire qu'ils défendent les droits de l'homme, plus particulièrement Alintune. Ce ne sont pas des défenseurs des droits de l'homme. Le peuple sénégalais ne les intéresse pas. Tout l'argent que vous leur financez par rapport aux ONG, ils sont en train de le financer ou bien de le mettre au détriment d'une personne qui est en train d'appeler la terreur, qui est en train d'appeler l'insurrection, qui est en train de déstabiliser le Sénégal, qui ne veut pas que le Sénégal soit sur la stabilité et la quiétude. Et c'est quelqu'un qui cherche à faire de la rébellion. C'est un panafricaniste qui a échoué sur toute sa longueur, qui s'appelle Ousmane Sonko. Ils sont derrière lui. La seule importance, c'est quoi C'est comment libérer la Casamance et lui donner l'indépendance en lui faisant séparer du Sénégal, en lui faisant croire aux jeunes Casamassés que la Casamance ne fait pas partie du Sénégal. C'est ça la tête de ces gens-là que tu vois qui sont à l'une et Seydi Gassama qui se profitent du peuple sénégalais pour dire qu'ils défendent les droits de l'homme ou bien les droits euh, civiques des Sénégalais. toujours dans votre acte du jour dama bëgg ñu dem seetaani une vidéo dellu si Nous ñu indil vidéo fii nga xamante Ousmane Sonko ay fenam fi mu tàmbalee mais jamono jooju mooy li may wax rek sénégalais suy demee émotion du ci bàyyi dara nañ seetaani vidéo bi dellu si waat aw cabinet bu Mercalex je ne suis pas actionnaire à Mercalex. mais da nga ne woon am nga cabinet gis nga waaw xaaral terminé. terminer nga. ñun suñu cabinet. Mhm. tuddul Mercalex. suñu cabinet mi ngi tudd euh, dama sonn waay. cabinet bi nu mu non non non. je crois que nee naa leen démb moo tax ñu naan tey suñu fàttalikoo démb ci Ousmane Sonko bañ koy njëkk a dégg accusation la indi woon ci 94 milliards yoo xamante ni tuumaloon na ko kii nga xamante ni moo doon directeur des domaines di Mamour Diallo ci ben titre foncier TF 5118 18 bu nekkoon Tëngéej bi ñu waron jënd jaay ko ku ci nekk ci ñom waron ci am bénéfice donc ci bir lolu la Ousmane Sonko commencé di def ay dénigrement Mamour Diallo bi nga xamanteni directeur du domaine la amul budget boo.

atlas Bobo, qui a dit, woon mu sur ki nga été Abdoulaye Baldé Abdoulaye Balde qui su ko qui di Amadou Ba xam na ko campagne da doon jaabante ci bureau Amadou Ba jamono des finances Abdoulaye Baldé Bobo, da doon Pierre Goudjabi Atepa a may wax ko en 2019 bi Atepa bokk ci élection présidentielle yi man la jëlone pour que ma géreel ko communication ci Scandinavie bi manam muy Suède di Danemark di Irlande manam pour que mu meuna am fofu parrainage nit ñi xam ko fofu ma signé won ak mom benn contrat bo xamanteni dañ ko signé won ba khatim ko ba nga xamanteni lepp yamb na ngone bima ma rendez-vous pour jox ma sama acompte bima ñëwé ci bureau donc diko xaar salle d'attente bobu la Ablaye Balde duggu Ablaye Balde yeey noppam am ay yo wax yo xamantene bejou teg apprécie fa ba jour bobu après cela la mujj contrat bobu kon Ablaye Balde bobu la ñu defoon turam ci turu Atlas donc Ousmane Sonko dilam ci biir 94 milliards yi lan la won manam ben dil la won bo xamantene daf ci waron am ben pourcentage bo xamantene dina tollu ci 12 milliards bu manqué quelques millions Ousmane Sonko si vous ba ci éclaté au lieu que mu gëm a mo mu génn ne day Mamour Diallo bëgg accusé que dafa sàcce 94 milliards vous avez tey gis ngeen plainte bi Ani musul preuve teg ko ci mooy comme li ko ci Niang fait Ousmane Sonko ne lañ la sur un plateau 2STV Pape Alé Niang di ko diriger ñu ne la sa société bu tudd Mercales nga ne société bu tudd Mercales ñu ne la sa société nous mu tudd nga créer sa société moom sa société nga ne fàttee nga sa turu société ndaxte da ngaa somm muy ay fen yu tooy xep yoo xamante ne Ousmane Sonko fii la ko commencé woon jeunesse bi waroon ubbi seen bët xam na ne que kii kat li muy wax ndax yenu na maanaa wala yenuwul mais ñu continuer top ko toujours nee naa leen su ngeen gisee may topp ci Ousmane Sonko c'est pas la personne de Ousmane Sonko qui m'intéresse la personne de Ousmane Sonko je le reste respecte comme doomu aadama gënuma ko gënuma Mais les propos de Ousmane Sonko d'avoir des ambitions pour diriger le Sénégal avec de tels comportements, Sénégal dama ci am wala da nga ci am wàll keneen dafa ci war am wala. Sénégal du kay ba nga xamanteni ni neex day jóg ne da koy diriger kon damay xol ki bëgg diriger sama rew ëllëg ban genre nit la yan kàddu la yor est-ce que ay kàddoom demb waroon ak ay kàddoom tay? muy lo xamanteni dam ko découvrir ci Ousmane Sonko très tôt muy un grand manipulateur un grand menteur un quelqu'un qui fait que inventer quelqu'un qui fait que accuser donc yenn seetaandoo vidéo bobu nga xamante ni dafa fàtte turu société boobu nga xamante ni nee na moom dafa sonn fàtte na turu société bi société bi ñoom ñoo defoon société bi tudd Mercalès bi bi éclaté ñu changé société bi tuddee ko Atlas jël Abdoulaye balde jox ko donc je crois que ñoo seet na doon vidéo boobu dama bëgg ñu seetaani beneen vidéo dellu si waat bu Macky Sall duggee ci terre bi dem jam ñaajo bu dellusee santatuma Sonko. kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo beneen vidéo bi nga xamante ni jamono ji Ousmane Sonko député la woon nekk ci pentum ndaw réew yi fanam yi woon fii muy accusé nit ñi ba bi topp ko bi ñu waree annoncé bi moom moo gëm la woon ni jeunesse que Macky wax dara du ci nee na Macky Sall su duggee ci terre bi dem jam ñaajo dellu si moom santatul Sonko et je crois que depuis boobu ba tey Macky Sall ngi dugg ci terre bi terre bi mi ngi faj seen soxla kon yaakaar naa ni lu mu waxoon mi ngi koy respecté mais Ousmane Sonko lu mu waxoon respecté

tay li daal Ousmane Sonko ba mu nek sous mandat de dépôt ba pare am condamnation de 2 ans ferme par contumace pour corruption à la jeunesse li yëpp daf ci bok loolu moo tax ma indi leen dama bëgg ñu seetaan beneen vidéo dellu si waat. ak may wax junj naa ne laaj leen Macky Sall ndax xamna Adji Sarr seede bi tay ñëw na ndax xam na ko moom Macky Sall ndax recevoir nako en tout cas génn na ci génn ñu Adji Sarr recevoir nako ko te benn autorité APR moko ko fa yóbbu ci lim leen wax.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

de la jeunesse nous jugé par contumace te nous notification bi tey xamal condamnation est devenue définitive de ko liste électorale donc Bobo mi ngi accusé. di accuser je veux Ousmane Sonko politique ci accusation ci sosol ay doomu la recevoir Ousmane Sonko Macky Sall recevoir Adji Sarr ne benn waay bu nekk APR boobu mi ngi jéem a jaxase waa APR pour ñuy xool kan mooy wax ak Ousmane Sonko ak kan moo dul waxal Ousmane Sonko donc muy ay fen yu tooy xep yoo xamante ne da doon teg di ko wax ginnaaw loolu Adji Sarr bu mu amee premier entretien ak waa groupe Leral TV dégg ngeen aji saar waat yu mu waat ci bàmmeelu yaayam ak lépp luñ ko doon jiiñ ci dossier boobu yàlla na ko dal te yaakaar naa ne aji tey la gën a wér tey la gën a nekk ci lu mu nekkoon donc su dul woon dëgg je crois que loolu da koy dal donc toujours pour vous dire que Ousmane Sonko bii ngeen di topp di ko défendre di ko yuuxul ci plateau yi di ay réanimation Ousmane Sonko ne mérite aucun pitié des parce que Ousmane Sonko amul woon benn yërmande leen ay problème ñii feebar wara dem hôpital Ousmane Sonko nek di woote appel à l'insurrection mu xamné 70% sénégalais ki activité personnelle lañuy amé dané daanee Ousmane Sonko saa yuñ ko convoqué dëkk bi melni ni dëj moo fi am kenn du ñëmé liggéey ndax sàcc ak bandi yi nga xamante ni ànd nañoo ak moom rax ci biir ñëpp bay seen boutique yàq économie sénégalais indi ay chômage ci biir dëkk bi est ce que tay Ousmane Sonko su amone pitié ci sénégalais dañu xalaatee non donc intérêt personnel am rek la xooloon kon tay yaakaar naa Ousmane Sonko lepp lu ko mënta dara dañ koy bayyi xam ni que limu mu ji woon démb lay góob tay limu rendi won mom moy nàcc ci loxom ni seetaane benen vidéo delu ci wat akar lol mooy néeg bi la fameuse néeg moy néeg bi nga xamné fa lañu wax ni euh, moy le lieu présumé fa la yëf yi xewee salon bi comme ni ngeen di gisee balaa nga dugg ci néeg bi ben caméra de surveillance encore mu ngi tiim pour woné ki nga xamné moy dugg mais comme ni ma leen ko waxé toujours kérok ci le 2 euh, février 2021 caméra bi branché wuñu ko woon li waral moy gannaaw coupure de courant la ñu woon débranché woon nañu machine yi fàtte ko branché waat loolu moo taxoon keroog branché caméra boobu. te te keroog bi yëf yi di xew soxna si nga xam ne moom moom salon bi muy Ndeye Khady euh, njaay moom nekkuloon ci kër gi boobu demoon na hôpital dem seeti li nga xam ne mooy bu prématuré boobu euh, jëkkëram rek moom moo nekk ci kër gi. bu ko defee dañuy dugg dans la fameuse salle salle bi nga xam ne fa la ñu doon Ousmane Sonko mais fa lañ doon ma comme ni ngeen koy gisee ni ñu leen ko doon waxee bu ñu génnee ci biir euh, néeg bi li nga xam ne mooy bunt bi bu ñu ko delloo comme gis ngeen ko bunt bi du tëju donc euh, xaw ma par ban extraordinaire la la ñu mën a dugg ci néeg bi euh, tëj ko ba mën a fa mën a def loolu nga xam ne moom la ñuy tudd mais comme ni ma leen ko waxee kër gi dafa am benn xale bu ndaw xale boo xam ne ñetti at la am te fu ne lay daw donc bu bunt bi waroon a tijjeeku ñu war fi mën a def dara xale boobu war na mën a daw à tout instant bu ñu ko xalaatee war na mën a jiixi jaaxa si xel yi mais benn encore événement bu bu bu doy waar comme ni ma leen ko wone diggante fii ma taxaw ak buntu entrée principalu kër gi matul 5 mètres. boole ci matul 2 mètres pour ñu entrer au salon kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamanteni Babacar Touré bu kéwlo momit nga xamanteni ni na fi ay fen yu tooy xep ba ñu yóbbu ko yoon teg ko loxo mu am ay retour de parquet di dem ay réanimation dellu soit bi Ousmane Sonko tàmbalee pour wax la ay nitam yu mu jëloon pour ñu jàppale ko ci manipulation bi jàppale ko ci fen Babacar Touré mooy li ma leen di wax toujours yéen waa Pastef amul crime bu parfait ci aduna crime bo meunta def rek dina am ben tâche bo fa baye Babacar Diop moy jamono bu mu ñuy won ni que lieu bi nga xamanteni fofu mo moo suite Sweet Beauty Ndeye Khady Ndiaye nekkoon fa Adji sar nekkon fa Ousmane Sonko laqtu goudi baye ana jamanka ak khadi Kébé da da fay dem dampulu ji ci dampulu joju nak lañ ko jigné won ay tekk ak ay xale yu jigen yu ndaw yo xamanteni ay moromu sëtam lañu moromu domam lañu tay ba mu indil ko 2 ans de ferme avec contumace Babacar Touré pour ne journaliste la askan bi la fi nekkal bobu Ousmane Sonko la fi nekkaloon mi ngi leuré askan bi bëgg xamal nit ñi bërëb baangi ni ben caméra mo nekkon ci kaw loolu la Babacar Touré wax néna caméra bobu jour bobu dañ ko débrancher parce que courant dafa coupé won Babacar Touré teg si nee na jour bobu nday khadi ndjay nekk fa parce que fa demoon hôpital gaspar Camara séti ben doomam bobu dafa prématuré Babacar Touré

duñu xalaat ni que y a des gens plus réfléchis qui les regardent tay nga ñëw ubbi buntu pare jël benn affaire kale ca ba nga xamante ne buntu bi soo ubbee loke bi soo ko delloowaatee du dugg ci biir nga bëgg a nax askan yi muy ay fen yu tooy xep yoo xamante ne ñii nekkoon ci gus gannaaw Ousmane Sonko ñoo ko dugal tey ci guuta bi nga xamante ni mu nga ca biir donc toujours mooy li may wax rek lu waaye rendi ci sa loxo lay naaj Pastef bi fi newoon tey ñu tas ko yaakaar naa ne dañu ko yéex a tas te yaakaar naa ne ay weer ci ginnaaw Cheikh Yérim Seck waxoon na leen Pastef dinañ ko dissoudre wala dootul exister té nee naa leen lépp lu mu leen wax téere la man Tange Tandian lepp lu len leen wax ci dossier Ousmane Sonko gis ngeen ko tay ba jaxaté lu len ci mas wax gis ngeen ko tey Madiambal Diagne lu mu ci mas wax gis ngeen ko tay Maty Trois Pommes lu len ci mas wax gis ngeen ko tay donc je crois que ñooñu ngeen jàppoon di dénigrer di saga et Dieu est toujours avec les gens qui disent la vérité yéen ci an fan yu toy xép ngeen nékkon motax tay tey ngeen dellu ci sen musiba bobu nga xamante tay mo leen yóbbu amatu leen ben ussi amatu leen gasta gasta amatu leen appel instruction léegi lan ngeen appel à la réanimation Ousmane Sonko na dee réanimation dafa gën ñu nekk réanimation pendant des années de foofu ou bien Ousmane Sonko il est supernaturel ou bien Ousmane Sonko est un demi-dieu donc je crois que dafa am ay fait yoo xamante ne moo yóbbu Ousmane Sonko tey fu mu toog muy ay fenu Babacar Touré yu tooy xep yoo xamante ne bëggoon na ko gëmloo askan bi démb moo tax ñu naan tey moo tax ma indiwaatal leen vidéo bi tey askan bi am temps am nañu xel pour toog analyser ndaxte jamono jooju mooy li may wax rek du taw ngay fobeere coow li bare woon na manipulation bi bare woon na ñu bëre jëluñu woon seen temps pour toog di dégluwaat affaire yi xam fu dëgg féete ak fu fen féete ñu seetaane beneen vidéo dellu si maa Macky Sall li mu gën a yaakaar. ci mhm. digganteem ak Sonko. Mhm. mystique la. mystique. ah xar fa xuufa wala bu sëriñ. te moom moo ci boppam. <laughs> waaw wax na ko nit. Mhm. nit ka wax na ma ko te nit ka nee na ma wax na ko Sonko ne ko Sonko gën maa baax sëriñ képp moo tax jàpp moo tax affaire bi mu rëcc. Mhm. waaw waaye bu fekkoon ne lii kaamil la ma dóor ci sama loxo ne. bu mhm. jàpp mystique ci Sonko ba keroog muy faatu moom. ce que. te bu defaruwul dëgg. Mhm. boo moytuwul dana dóor bal boo xam ne ci kawam lay jëmaat mu daal. mais comme nga ko waxee rek yàlla ya yàlla ñu ko indil dafa am. gis nga nit ku dëgg. dañ koy moytu. dëgg moo man lépp ci àdduna waaye dafa diis. dafa diis. Mm. waaye boo ko xasee ba yanu. Mm. maanaam yaa ngi ci digg àjjana di dox. maanaam yàlla ki nekk àjjana yàlla du bàyyi lor di jóge fenn di tàbbi ci kawam. Mm-hmm. boo xasee ba taxaw ci dëgg ba taxaw ci ba taxaw ci. Mm-hmm. ba suñ borom nattu la. ba mm-hmm. xam ne yow da ngaa maanaam yaa ngi ci digg àjjana maanaam yàlla beetu bàyyi lor di jóge fenn. di dal ci sa kaw mooy li sëñ Tuubaa mucce woon ci tubaab bi. dëgg dong. dëgg yow itam ku dëggu ku dëggu nga de ku dëggu nga dossier bi ko laal mm-hmm. lu xorom am na loo xam ne du teggiinu sax mm-hmm. waaye sama benn xarit daf na ma Sonko gaa yi dinañ laalaat dossier bi ma ne ko mm-hmm. bari na ci gaa yi ko war a laal gars yi ko war a laal bu Sonko weyoole woon seen jabar fii nii. <laughs> man dañ koy waxtaanee waaye duñ ko jàppaan. <laughs> est-ce que <laughs> est-ce que. wax jàpp ma moom. la ca xew daa bari. ah loo loolu moom loolu moom. Eh, daanaka internet yi temps bi ñu mayoon nag wax dëgg yàlla jeex na tàkk waaye daa mel internet yi doyaluñu eh, ci li ñuy def rek eh, di la ko ñaan bu mënee nekk bu mënee nekk rek. dégg loolu moo andi mbirum aji saar ñëw taxaw aji saar it bi mu taxawee li ñu li ma ci xam moom duma ko wax ci àdduna man. Hmm. waaw ah xanaa maa folli ko damay bañ ma yàq màggal bi. ah déedéet waaw. lépp. boo ko togg. Hmm. bi mu ñëwee ci. salon de massage bi hmm. ndey xadi njaay dañ na dafa ñew aji sar am fay fan febar def am dom bi prématuré def hmm. ci hôpital ba hmm. loolu lolou lolou lu yàlla dogal nii rek de ñom ñoo andi aji sar fexé ba day xadi genn genn salon bi parce que bu fa ko ñewon fekk fa responsable salon bi la fa am du am fa am ñoo duggal aji sar ba nopi jëlé fa nday xadi bu fa nday xadi joggé demal nga laaj Ndeye Khady ñaata massage la fa bàyyi. mais comme Sonko moom warul Adji Sarr warul Kumba warul Binet warul keneen moom day maase wu bu ñëwee mën naa am. masseurs yi. ki bëgg mu maase ko pour mu comploter moom du ko maase. ñu fay leen ku ne trois cent mille. ay pour débourser leen. loolu révélation la dëgg laa la wax. Ndeye Khady Ndiaye du ko weddi ñëpp kenn du ko weddi dañoo doon fay booy yi man ki leen doon fay xam naa ko. ah Cheikh li nga wax laaj bi ngay dem feebar di dem ca hôpital ba. waaw ñaata massage nga fi bàyyi ak di soo koy ñëw ñaata la fa fekk dañoo ne ñëpp bàyyi leen. dañ leen dañ dañ leen a fay pour ñu abandonné. débouché ne leen kaay. débouché leen 300000 ngi nii fii police dafiy bëgg a ñëw. bu ñu ñëwaat. bu fi ñëwee la def fekk la leen di jàpp dama lay dimbali jëlal lii nga dem seen dëkk. nga jël yoor xam nga ne kuy wër journée dix mille ki cinq ah, waaw ñu fexe ba rocc massage kat yëpp. Ah, bàyyi ah lii révélation la ci beneen partie. ci complot bi bàyyi fa benn massage pour bu sonko ñëwee mënta moy hmm mënta moy hmm boole ko bis bu nekk di ñoot ñooti ndax ñëwagut mi ngi ñëw ndax mhm. ñëwagut ñom ñi gaara seeni auto di xaar ba xam dana ñëw ak du ñëw xolal lañ fa daj ci ay jour mhm. man gis nga daara daaray isbu tarxee ya daaru xudóos bi ngay gis ma mhm. maag ñoma dekk ñi ngi nii seen kër ngi ni seen jang yi moom la doon laaj nak ngi lo dérange seen chef ba nekk kër euh, dakar mook suwet bu te ñoo takalo ñoo taxaloo. Hmm. man ñenn ci ñoom am na luñ luñ xam ci lu bari ci mbir moomu dañ fa toog a toog ba maxe ba ne waaju du ñëw bis nga bis bañ ñëw. Hmm. ca la Sonko ñëw. ñeneen ñi doon toog di xaar. da leen a rëcc. yëpp ba ne léegi moom guddi gu jot comme Sonko moom yi guddi gu jot nañ fi monté di ko nekk. jour bi bis bi ñu ñëw. ci la Sonko commencé mbirum yàlla. mbirum yàlla. billaahi wallaahi dañ faa taxaw ba maxe mm-hmm. taxaw mm-hmm. gaare kat kat monte fee dof monte fee kee monte fee kee mm-hmm. dégg laaj ko tey xadi ñi nekk fa ay weer mujj ñuy jël aji saar ci boppam di ko yóbbu ci cabinet avocat ñu koy conseiller ah, en ñëwee naka la ko mën a aborder ba am ci moom rek dara préparé ko moom am na ci ku doon wax naan dama ko woowoon sama bureau pour. waaw amoon na amoon na amoon na buñ koy violé buñ koy violé. Mm. dama ko wax ne ko fii 15 jours dañ koy violé. kon ñoo seetaandoo vidéo bi nga xamante ni Cheikh Bara Ndiaye sëriñu tariyaax tradipraticien naxakat boobu borom xob yi yoon teg ko loxo mu nekk ci ay grève de la faim ak di créer boppam ay réanimation ak. ba mu taxawee di yëkkati ay tuuma ak ay fen di ko teg ci kaw président Macky Sall di nan mystique la yaakaar ak nangam sangam Cheikh Bara mo féké fu Macky Sall yaakaaree mystique Cheikh Bara moy féké fi nga xamante Macky Sall néna Ousmane Sonko daf ma ëpp sëriñ motax nangam sangam su dee Ousmane Sonko daf ko ëppoon sëriñ dembu dé tay Macky Sall ëpp na leen sëriñ ndaxte Cheikh Bara Ndiaye yaang ci kasso ba Ousmane Sonko ma ci kasso ba donc genre nit yi la tok tay di défendre ci plateau yi ay Walfadjri di organiser sitting pour des gens comme Cheikh Bara Ndiaye alors que Cheikh Bara Ndiaye a toujours prôné jamais à l'insurrection. Cheikh Barandiaï n'a jamais parlé du côté du peuple. Cheikh Barandiaï était un militant sympathisant et partisan de Ousmane Sonko. Tok de fan subangon guddeg beujek. Ba tay liko ci dal dal ko ci. Magis ma gis ay nit yu réunir ci ben salon naan dañuy rok Cheikh Baara Ndiaye ci famille la bokk famille bi la bokk famille bii la Cheikh Baara Ndiaye dafa gën Cheikh Béthio Cheikh Baara Ndiaye Khadim Bousso Cheikh Bara Ndiaye ay famem dañoo gën famille Ablaye Wade Cheikh Bara Ndiaye famem dañoo gën famille Karim Wade Cheikh Bara Ndiaye famem dañoo gën famille Barthélemy Diaz mbaa Khalifa Sall ñi nga xamante ne bi leen yoon waree teg loxo da leen teg loxo ay seytaane yoo xamante ne ñoom ñooy ay suqam maanaam sëriñu tariyaax boo gis am na ay fenkatam ak ay genre ñoom ñooy dem ramasser ji nit ñi leen jox ay pourcentage naan Cheikh Bara Ndiaye nee na suñ ko génneewul mu dem màggali Touba dafay xaru Cheikh Bamba Ahmadou Bamba bi tax ñuy màggal Touba tey ba ko Touba bi soxlaa dafa dem ànd résister ci xam-xam teg ko ci fulla ak ci fayda dellusiwaat Alaaji Malick Sy pareil Cheikh Omar Foutiyou Tall pareil Mame Baye Niass pareil Cheikh Bara Ndiaye tuye kii ba ngay yónni say dof yooyu ñu taxaw si ay Facebook di wax naan suñu libéré wul Cheikh Bara Ndiaye su demul màggal dafay xaru bàyyil màggal Touba bi ngay mbubboo gëmoo Serigne tuubaa gëmatoo Serigne Touba soo gëmoon Serigne Touba am nay toogaay yoo xamante ni doo ko toogee ci plateau télévision yi di fen suba ngoon guddeeg bëccëg di yàq ay deru jaamur di xas ay doomu jaamur jamono jooju ñooñu fu ñu nekkoon ñun la ah yow kat ci famille diw nga bokk am na wax yoo xamante ne waruñu la si dégg am na famille bu baax soo ci nekkee kat am na yoo xamante ne da nga ko war a jombal sa bopp est ce que waxoon nañ ko tey la ñu toog ba nga nekkee ci biir kaso bi ngay fen di naan ay grève de la faim nangam sangam grève de la faim ba dee foofu nga xool Cheikh Bara Ndiaye da ngeen bokk ci lu taal Sénégal Cheikh Bara Ndiaye da ngeen bokkul ci lu indi insurrection ci Sénégal Cheikh Bara Ndiaye da ngeen déstabiliser économie Sénégal donc arrêté seen waxi démb mi ngi fii tey démb moo tax ñu naan tey li ngeen doon wax démb tey moo répercuté wu ci yéen li ma ko waxee Olof Ndiaye nee na lu waay rendi ci loxo lay naaj Cheikh Bara Ndiaye mënoo intimider kenn gis nga sa quelques maniganceurs yooyu ngay jël li leen teg ci plateau yi ils n'ont qu'à aller au diable on ne les écoute pas le Sénégal est plus fort que le peuple sénégalais est plus solide que donc mu doonoon benn vidéo bu leen loon si Cheikh Bara Ndiaye nañu seetaani beneen vidéo dellu si waat Cheikh Bara ñëw nag ci li nga xam ne moom la ñuy wax wàllu kaso. Mhm. parce que kaso. Mhm. Euh, dafa nekk loo xam ne jaaxal na nit tey euh, daal gaaw na lool surtout ci jamono ji mhm. léegi nag luy tee dem kaso. waaw ma njëkk wax ne man moom am naa. Mm. ndomba go xamne dama koy defar ndomba xam xam wa njare la hmm day tax nit ki bu ko takke bu tukke dina ñew mm-hmm. même bu doon def luñu téré hmm kasso mom caabi du ko fété ginnaaw kenn du ko tej waaw boko takke hmm caabi du la fété féete hmm waaw ndomba go xamne boko takke ko du la fété caabi du la fété ndomba go seer baara xana war na ser de eh? non mën naa bañ a ay ser ak yoy garaawul waye mm-hmm. amna nga xamne da ngay muccu ci walu kaso ak ak ak ak ak gis nga man. waaw xaw ma kan moo ko mën a seetlu am na ministre bu Ablaye Wade boo xam ne. waaw mas naa ko defaral loolu man. ndomba ndomba ndomba. Mhm. bi ñuy mars. waaw ñu ne ko ciixtee dugal ko ci oto bi. oto bi daa tàkk. oto bi daa tàkk waaw. oto bi dafa tàkk ba police daw moom ñu nekkoon ci oto ba tijji ñëpp daw rek mu jeex. kon yaakaar naa ni ñoo doo vidéo bi nga xamante ni kii ñi naan Cheikh Bara Ndiaye sëriñu taariyaax tappalekat naxaatekat naxasaale yàlla bi dara teewul jël dëggam teg ko ci kawam ñu jël jàpp ko ci wàllu complicité de l'appel à l'insurrection jëloon ay ndaw di leen fay pour ñu taal dëkk bi déstabiliser bi def lépp ñu tëj ko ci kaso ba muy indi grève de la faim moom mi caabi féetee ginnaaw mënul génn moom mi naan tey su ma suñ ko bàyyiwul mu dem màggali Touba dafay xaru te moom nee na dafa amoon ndomb boo xamante ne day tere nit dem kaso Cheikh Baara Ndiaye nee dafa am ndomb boo xamante ni fu waay tukki da ngay dellu siwaat Cheikh Baara Ndiaye na tooñ boo mën a tooñ yoon ndomb boobu bés boo ko takkee doo dugg kaso Cheikh Baara Ndiaye bi ñu koy jàpp xanaa ndomb bi daf ko réeroon ba nga duggee kaso ana ndomb bi xanaa gars yi indi lu ñu la ko wala ndomb boobu joxoo joxoo ko woon Ousmane Sonko joxoo ko woon Bassirou Diomaye fay joxoo woon ko Hannibal Dine joxoo woon ko Pape Abdoulaye Guèye ah xanaa joxo len ko won li la len di wax ay fen kat lañu ay tapale kat lañu ay naxasale kat lañu amuñu dara ludul yàlla nen la ludul yàlla nen la ben nit mo am doole ci aduna muy yàlla suñu borom subhanahu wa taala doole bo meunta am katan bo meunta am kéemtaan bo meunta am yàlla moko wacce ci solo mais souvent dañuy wax fàtte yàlla yàlla nak mo indi tay bopam wol len ko diggu becc ak ndar kam kon yakana ni ku yor tere bo xamanteni do duggu kasso ndomba bo do duggu kasso je crois que Cheikh bala ndjay wax deug yàlla waro won def kasso 24 heures même su dee bi ñu lay jàpp da nga fàttee takk gars yi suñ la indi leen domb bi wala nga jox leen ay signe je crois que yow ak Ousmane Sonko yëpp ci biti leen fekk donc je crois que sénégalais yéen démb moo tax ma naan tey moo tax ma indiwaat leen vidéo bi ngeen seetluwaat xool bu baax ce que ñii dañu mérité humer l'air libre est ce que dañu war a am liberté tey ci dëkk bi alors que lépp luy instruction lépp luy fitna lépp luy wooteelu gasta gasta lépp luy wooteelu ci Sénégal ñoom seen loxo def ci nekk muy Serigne Bara Ndiaye bi nga xamante ni vidéo bi defoon na ko fi ñu xooli beneen vidéo dellu si waat ñu ne jàpp nañ Ousmane Sonko te bàyyiwuñu ko te saasa maa ngi woo askan yëpp ñu jóg nañ ko defee woon mars bañ ma jàppee te teguñu ko ci yoon nañ ko defee ci juin bi ne askan sonko bi dañ la doon nax rek leer laa lay wax place yaa ngi nii fas dal léegi nag booy jaay nañ la ruux la ba nga dugg tey boo xaluma la kostewuma la man su may xeexal man ah ma dem jaayante ni sama waajur amee ay building ak ay château ak mais man may xeexal koo xam ne am nga pare ba pare du ma la xeexal man yow Sonko mu ngi ne këram L plus 3 la L plus 2 yor ñaari soxna man amaguma jabar ma dépense lu ma reeree sax amaguma ko may dem di rayante ji mais dëgg rek kay dëgg bu taxawee si dëgg ñu fekk ci ko si dëgg bu taxawee si dëgg ñu romb dëgg taxaw dëgg kon yaakaar naa ni ñëw seetaandoo vidéo boobu nga xamante ni Ousmane Sonko mi ngi doon dànkaafu di naan jeunesse bi bi ñu ma bëggee convoqué mars deux mille vingt et un ginnaaw bi ma Adji Sarr tuumalee dama ñëw foofu violé ko ni ngeen génnee woon ci mbedd bi dama bëgg bés ñu ma jàppee yóbbu ma kaso rek ci saa si ngeen génnewaat noonu taal dëkk bi waaye yaakaar naa ni jeunesse bi ñoom ñoo ko tontu jeunesse bi li ñu ko tontu maanaam mooy Sonko dañ la doon nax rek jamono ji taluñu la demal nga rek say problème ñun ñu ngi ci plage yi ñu ngi noos ñu ngi enjoy suñu bopp beneen waa j lan la ko wax nee na man du ma xeexal ki nga xamante ni dafa am building am immeuble am ñaari jabar ay doomam nekk Canada mu def leen sur ay place yu baax crois que jeunesse sénégalais dañ doon nelaw mais jamono ji commencé nañu yeewu ci Ousmane Sonko mooy li may wax rek mosuñu gis fenn fu mu bijaawee waaye dëgg foo ko fekk day bijaaw saa su ne Ousmane Sonko nag ak ñi mu àndal muy ñoom Cheikh Bara Ndiaye muy ñoom Hannibal Djim muy ñoom Pape Matar Abda Pape Abdoulaye Guèye muy ñëpp ñi nga xamante ni tey caabi féyte na leen ginnaaw ñi nekk ci kaso bi gars yi di naan ay détenus politiques alors que c' est des brûleurs à l' insurrection ba tey jii may wax ak yéen ñi nga xamante ni ñoo doon taal consulat ba. Milan keroog ba ñu wàccee aéroport ba ñu wàccee aéroport laa leen wax bëgg a màggal si si leen leen yoon teg loxo ña ca kaso ba tey ñooñu la ñuy naan ay prisonniers politiques ñooñu la ñuy naan dañu wax seen opinion est-ce que taal ay consulat taal ay ambassade saccagé foo xamante ne yow yaa fa soxla kayit loolu. dafa bok ci euh, wax sa opinion ci réew mi wala dafa bok ci banditisme wala dafa bok ci affaire voyoutisme ñi nga xamanteni ci ginnaw Ousmane Sonko lañ donc je crois que Ousmane Sonko xawma da nga nek réanimation xawma ma réanimation xawma da nga nek grève de la faim xawma ma grève de la faim en tout cas ça n'engage que toi ça ne concerne que toi tu n'es pas mieux que ces tous ces détenus qui sont en prison gënoon ñi de réanimation dans tous les hôpitaux du Sénégal donc Alioune Tine Sidi Gassama euh, de grâce maître le lit, dem leen ngeen conseiller sen client na nan te bayi manipulation bi justice sera faite justice dañ koy appliquer nul n'est au-dessus de la loi dama yakar nak deglu len discoursu Macky Sall le 3 juillet 2023 bi muy renoncer candidature am xamal na len ko mom moy président du Sénégal ba le 2 avril jour muy def passation de service y ñi fi amone problème ak yone la loi s'appliquera sur tout le monde donc je crois que nous donnons une acte du jour pour VIP People TV le site des grands événements s'informer juste et vrai pas vous abonner, notification d'ici là je vous souhaite de passer une excellente et agréable journée sur les programmes de VIP People TV restez scotchés tout de suite vous allez recevoir le journal VIP le scandale du jour les revues People et surtout les émissions en direct sur VIP People. Je vous donne rendez-vous à demain sur un autre numéro. Hello guys, une bonne nouvelle avec TapTapFans